abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot su nekk xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim réew. internet ñuy bàyyi xel ci seen info point net ak sene info international ñu ngi leen nuyu fas yéene dafa dënk xibaar tey mercredi di juin 2023 ñu tàmbale kook xibaaru biir réew mi. Sidya Ndiaye di secretaire général bu fédération général des travailleurs du Sénégal nekkoon nag koo xam ne ku ràññeeku la ci mbirum syndicalisme fii ci Sénégal moom nag moom moo génn àdduna ba suba tey bii ca hôpital principal bu Dakar muy nag ñàkk goo xam ne kon ñàkk bu mag la ci ñi nga xam ne kon ñooy yëngatu ci wàllum syndicalisme rédaction bu Séné Info nag ñu ngi jëbal seen njaal ñi nga xam ne ñoom ñooy. Euh, fameem wante itam képp ku yëngatu ci wàllum syndicat ci biir réew mi beneen xibaar bu tiis muy génn àdduna soxna Safiyatu Si eh, di doom ci Serigne Babacar si mi nga xam ne moo njëkk a nekk xalifa général des Tidiane moom nag ñu ne mu ngi génnee àdduna eh, fële ca Médina ci Ndakaaru levée du bi nag eh, bësu tey bi lañ koy amal wante itam dinañ ko jébbal boroomam ca tuuba ca Tiwaawan buñ ca noppee xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké démb nag euh, dafa woote ab journée boo xam ne kon dañ cay jàng alxuraan def ci ay ñaan ca daara yi nga xam ne kon nekk nañ ca euh, Touba wante itam muy koy sàkku ñu def ko ci dëkk bi yëpp fépp foo xam ne daal dañ fay euh, jàngale alxuraan te dafa jaamoo yàlla muy ñaan kon wala bokk muy sàkku ñu def li nga xam ne moom mooy ab journée eh, coranique euh, loolu nag jàpp nañ ko ëllëg euh, jeudi di 15 juin loolu nag kon daal réew mi fi mu toll daal euh, tax na kon ba ñu yaakaar ne war nañ amal boobu leen njàngum alxuraan wante itam ñaan tuub dellu suñu borom ngir nag euh, jàmm am ci biir réew mi ba léegi dañuy des Touba ak nag ñi nga xam ne ñoom ñooy Baay Faal bésub tey bii nag euh, génn nañ dox ca mbeddu dëkk ba ngir nag euh, xamal ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Touba ndigal li nga xam ne xalifa général de mourides di Sëriñ Muntaxa jox na leen ko ngir daal ñu sàmm ak sàmmanteeg lépp loo xam ne kon dañ koy tere foofale ca dëkk ba li ni mel nag mun euh, Muntaxa daal daka féddali ak ñi nga xam ne ñoom ñooy Baay Faal yi xamal leen daal lépp loo xam ne kon dañ koy tere foofu la ca dëkk ba ñoom ñi nga xam ne ñoo kon Baay Faal yi euh, nañ ca taxaw bu baax a baax loolu nag taxoon kon ba tey ñu amal euh, boobule mobilisation dox ci mbeddu dëkk ba kon ngir nag woo nit ñi ñu sàmmanteeg boobule ndigal xalif général des mourides Serigne Mountakha joxe xibaaru Afrique dañ koy tàmbaleek Nigéria foofu nag xam ngeen ne lëndi ab jéeye moo fa amoon muy ab bateau boo xam ne dafa daan woon ci ab dex kon suux ba ñu bëri ñàkk ci seen bakkan ab bilan bu njëkk nag daf ne woon lu toll ci cent trois personnes ñoo ca ñàkk seen bakkan wante nag euh, bésu ba tey bii beneenu bilan joxe nañ ko ñu ne nag am na lu toll kon ci cent six personnes yoo xam ne loru nañ ci jéeye jooju bu ñu sukkandikoo nag ci police bi nga xam ne kon ñoom ñoo euh, wax xibaar euh, bi ni ñu ne sax euh, ñu bëri ci boobule lim ci benn dëkk lañu ñu bàyyeekoo. xibaaru bitim réew dañ koy tàmbaleek réewu Grèce foofu nag euh, ab gaal boo xam ne dafa yeboon ay nit yoo xam ne kon. ñuy wooye ay migrants moom nag euh, moo suux ba lu toll ci soixante-dix-huit personnes ñàkk fa seen euh, bakkan mu amee nag euh, ca sud des kon bu dëkk ba ñuy xam ne nag ne boobule gaal yeboon na sax ay nit yu téeméeri téeméeri nit kon ba sax kon ba mu suuxee kon jiyee jooju am sa lu toll personnes ñoo sa ñàkk seen bakkan ñu ne nag loolu bokk na wala bokk mooy sax jiyee ji nga xam ne yu gën a métti la bi am ci géej bato bu suux ay nit faatu ba lim bi ni toll kon ñàkk ci seen bakkan nee nañ euh, ci histoire dëkk ba kon mooy jéey ji gën a mag ji am ci biir géej Silvio Berlusconi di nag euh, ab homme d'état wante it euh, nekkoon président bu AC millan gannaaw bi nga xam ne nag génn na àdduna foofu la ci Italie ba suba tey bii la ñuy amal ab dëjëm ñu ne nag ay responsable politique yu bëree bëri teewoon nañ ci euh, boobule euh, dëj kon ngir nag euh, gunge ko kon ba ci këram gu mujj la ci Italie sax ñu amal fa ab journée de deuil national ngir jagleel ko ko. Donald Trump nekkoon njiital États-Unis moom nag démb xam nga ne dañ ko doon àtte ci ab tribunal fédéral foofale ca Miami ca Floride gannaaw bi nga xamee ne nag dañ koy tuumaal ci nag na mu yore woon ay documents yoo xam ne ñu ne dañ ko classé woon confidentiel démb nag moom Donald Trump fële ca New Jersey gannaaw bi mu doon jàkkaarloo sax ay partisans mu ngi doon daal xamle ne ñi nga xam ne ñoom ñooy daal. Euh, nguur ga euh, daal nañuy euh, dañuy doxalee daal kon lu leen neex ba sax mu leen di woowee mu ne abus de pouvoir audio kon ñi nga xam ne ñoo yor nguur ga li ni mel nag lu njëkk la ci histoire États-Unis mu am nag ab président boo xam ne justice fédérale inculpé na ko foofu la ci États-Unis xibaaru sport lañ koy jeexale démb nag euh, gannaaw bi nga xam ne mu ngi doon teew ci conférence de presse bu ñu doon amal ki nga xam ne moom mooy capitaine bu équipe nationale football bi di euh, Kalidou Koulibaly xamle na ne nag match bi nga xam ne war na dox seen digg ak Bénin suba ci samedi ji donte nag euh, fi mu nekk nii sax ñoom qualifié nañ nekk na match boo xam ne match bu am solo la te nag dañ cay dem ngir am ca ndam moom nag mu xamle ne ndam boobu ndam lu am solo lay doon ndax sax fi mu nekk nii première place ci Afrique ci classement bu fi FIFA ñoom ñi lee gaynde yi dañ koo war a gañewaat gannaaw bi nga xam ne fi mu nekk nii réew Maroc moo leen jiitu lii la ñu tey ci xibaar bu seen teewlu di leen jox daje ëllëg jaa ngeen jëf.